mbirum daraay ci Sénégal kala jàngal ka ko jàngal Cheikh Seydi El Hadji Malick moo ko jàngal te dama koy laye ndeysaan mu ngi wax isa nahnu jina nahwahu min taallumin waaye nag wajadnaahu sëran layna lam yusaddidi ila nahnu jina nahwahu min taallumin xam naa damay firi bayit boobu nga may ma man diibal ko ba ci kanam ma soog a ñëw ci li nga bëgg إذا نحن جئنا نحوه من تعلمي بقري فيقولني بين برام خم خم مكان ما فستن وهي أبو الافتتاح إذا نحن جئنا نحوه من تعلمي ما جاي borom xam-xam day jàng ba fees del seen xaaj ma ne xanaa yëgu ne bari na ponk li ñëw ci moom dañoo jàng ba jeexal mboolem lu ñu war a jàng إذا نحمد إنا نحوه من تعلمي ويخلنا دجان قبام نيغا ورا خم بخم نيغا ورا خم دلي ورت يو ديف نيغا بو دار إذا نحمد إنا نحوه من تعلمي وين نمك مولا بني مولا دانغول ندف أوبي إذا نحمد إنا نحوه من bi da ngay faral di dégg téléphone bu jógee bitim réew ñu naan la dañ ko war a décoder Seydi Hadji Malick danaan décoder mag ida nahnu jina nahwahu min taallum nee na bu ñu ñëwee pour sàkku xam-xam ci Seydi Hadji Malick isa nahnu jina nahwahu min taallum wajadnahu sahla layyinan lam yusaddid nee na bu ñuy jàng xam-xam ci Seydi Hadji Malick wajadnaahu danañ fekk xam-xam bi sër bu jàppandi lay na mu nooy waaye lam yu sax di ko dëgg doom si daxaani ba. wabal lii. ko dugg ci lépp tër ji wabal lii. wabal lii. kan wabal lii. Seydi El Hadji Malick rek abal lii. moom rek abal lii ku dul moom. wabal lii. wabal lii ku dul Seydi El Hadji Malick. Seydi El Hadji Malick jëmal taxaw mu màggal Maodo rek abal lii. moom rek abal lii. bi ustaaz yi rabbil muriid ahmad bal li fi nekk himmatin ci yitte la def la def rek taalib yi lislaam la moom Seydina Muhammad wa man lii ah, ah, ah. bi ixraaji l-xaqaa'iqi naasihan ak moom la jël xam-xamu xaqiiqa yi ak xam-xamu laay biir wa man lii bi daraasil kitaabi wa musnadi téere yàlla bi ak sunu Seydina Muhammad te loo ko mën a jël def ko ci ci bopp wa man lii ko mën leen ko jël noonu la wala moom lañ ko mën li moom xam-xamu warsa. bal Junayd. riwaaya warsa ak xam-xamu Junayd ba. wal Ash'ari. nee na nee na imaam Nasaari man doon jox ne kenn du ko mën a jël. wa bal lii. ku mën léegi lu seen Haaji Maalik Kuya Lee. Huwag mo pa udol, lakad ka pa waxam xam la am ci xam ma mo ko badri be ko wadi muhammad ki ñu ko xamal mo sayyidina hajji ma ko mbeli wa khalbi man abdullah saw mo kay wax sayyidina hajji ma rek dal di tax mu wax ko ko ban rek dimbali ma ko ma ci dimbali bari ñam na programme bu ñu doon def sargal Seydi Hadji Malick mu ne Seydi Ahmed Mbaye Maodo nit ñi dañ koo réere mu ne tax mën ko mor dañoo jël dañoo jël Maodo askan la ko Seydina Mouhamed ma ne ko Maodo li mu wax suñu borom subhanahu wa taala kenn da wax yàlla ma jël ci benn mbéy firi ko Seydi Hadji Malick ni ala himmati فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا حارسا كل وجهك moo doo ko wax Seydi Hadji Malick ne sama yitte lenn rek la lenn rek mooy sama yitte mooy ma nekk góor bu set wicc Maodo mooy wax de nee na maa juddoo ci Ousmane ak Fawad te ba may juddoo ci Ousmane ak Fawad yàlla naa nekk góor nee maa nekk daay di jàng ba may nekk daay nekk tout tànk di yàlla na nekk góor maa jugee gaaya dem di wër xam-xam yi di jàng ba may jàngi xam-xam yàlla na nekk góor maa jugee gaaya ñëw ndar bu may ñëw ndar di jàngal góor yàlla yi yàlla na nekk góor maa dem Njaané formé góor yàlla yi ba may formé góor yàlla yi Njaané yàlla na nekk maa ñëw Tiwaawan defar waa Tiwaawan ba may defar waa Tiwaawan yàlla na nekk góor man Seydi Hadji Malick ba keroog ba ma tëddee sama lal moo di génne yal na nekk góor ñi may ñaanal bu ñu may ñaanal yal na ñaanal góor ñi may ki su may doggale yal na doggale góor ñi may sàgg bu ñu may sàgg yal nañ sàgg ñi may sàgg bu ñu may sàgg yal nañ sàgg góor ñi may wuti faal bu ñu may wuti ñi may yóbbu ci sëkk bu ñu may yóbbu sa sëkk yal nañ yóbbu góor ñi may yor ci bàmmeel bi yal nañ yor góor ñi may ñaanal di ma dekk góor di nekk góor di nekk góor ba teew sama kanamu borom nekk góor bu seen wicc ala himati fajal ilahi aliyatan li an si xurran xaalisan kulle rijal fama bal na yomal jisaay waxilati dégg nga de ma wax ca muur ma wax ca mbuur ni leen Maodo li Pape Malick Mbaye wax rek nangu naa tëkkale wala du ndax li nga yéene mooy dañoo yaakaar ni boo xasee ba nekk wulli rek banaa fone nga waaye keroog Cheikh Omar Foutiyou ba muy jot maqaama ba ca xare teg jaas bi wàcc fas bi jàng la muy jàng dugg ci dugg ci koran bi même pas une minute mu teew ci kanamu Seydina Muhammad sixième asamaan soixante-dix mille malaayika yi di ko wër di jàng jawharatul kamal Cheikh Omar Fouti ñëw ba ci Rasulullah jox ko loxo wax ko nam koy wax parce que boobu la mu jot warul rey melentaan ne ko su su su ma xeexoon ak ñoom rek danaa rey te waruma rey dara te bi ci des su ma leen forcé woon dugal na ci tarixa bi danaa leen propagande te kenn du ci forcé kenn. keroog Serigne Sidi Hadj ba mu toogee di jàpp ba mu yàgg dégg lu ne ci kaw ci naan yaa Malick yaa Malick mu tourné gisul dara mu naan yaa Malick mu tourné am lu naan yaa Malick yow Sidi Hadj Malick. adrakta maxaamu fulaan jot nga maxaamu diw xamul luñ koy wax dégg nga de adrakta maxaamu fulaan wala jaawasta maxaamu fulaan arbaina maxaama ndeysaan si Omar Fouti mu jékki-jékki moom war a déglu ne ci sama ji nan ko adrakta ay ay ay ay Omar Fouti nan ko maqam Omar Fuuti ba jot nga ko boobu la ko soog a jot waaye rombaat na ko ba teg ci 40 maqaam ñu yaakaar ni boo xasee ba nekkul lii paraphone ka